di ay kàddu cant jëmale sëriñ Bay sëriñ Saliou maa ngi santaat sëriñ Bay bu wér di ko cant cant boo xam ne yëg naa ni lot naa ci maa ngi koy sant di sant ñëpp sant na ko ma mu yàgg jàmm lool te boole ko loolu ñu may xel di gis Samb waa gi ma teew fii fii ci sacré fii ci Daaru Salaam xam na bu fausi bu joxeel maa ngi bég ci mboolu mbokku taalibe yi fi daje yëpp di bég lool ci de l'universel Soxna Batoor Touba Touba di dégg lool ci dédicace Adja Saliou xel ko di dégg lool it ci dédicace sëñ Khadim Tour mbooloo mi maa ngi sant moom day sama mbég tey mooy daje gi ñu daje tey lii mbooloo mi teewee te ma lim ci jàmbaar yooyee fukuraas yooyee jàmbaari Serigne Béthio yooyu nga xam ni ñuy samay mbokk taalibe soxna yi samay rakk Serigne Béthio boole ñu def ñu ay taalibe liggéeyloo jël mbooloo ñu teg ci suñu loxo tey sama mbéy ak sama càq mooy dajaloo gi ñu dajaloo mosuñoo ñàkk sax dajaloo waaye def yi ñu daa fës dafa rafet te dafa neex anniversaire du Samba Waaw Góor ndax kat man eh, Serigne Béthio damaa yàq te it li mu def sax xaw ma ko dama koy wax saa su ne li jëndiwu ma ko sax nag naa ko te neex na te maa ngi sax koo doon taalibe faw taalibe sama digganteeg moom bu dëggal sama digganteeg moom bu dëggu te bu fas yéene ànd ak moom faw di ko liggéeyal fas yéene goree te du ma ko war mukk yërmande saa su ne li may dëkkee di wax mooy ñu dee e bopp lañ sëñ béykat suñu sëriñ kër gi benn kër la. borom kër gi te mooy Serigne Mbaye Ba moom la soob mu dem ba mu neex ko ndax dama koy wax ci jàngale naka Serigne ba mu dikkee ba mu fay nii ci ñu mën a gis tey damaa fas yéene yeesal suñu Muhammad ba noppi sax ñu yëngu Serigne Sall yi ñu dëgg dëgg Serigne Touba bu mu dikkee daay yeesal yoonu murit ba noppi samp cant yi mooy cantaat yi moom sëriñ bi muy benn cheikh ci li mën dugg te sëriñ Saliou leeral ne du ma def ci yow ku yàlla sama doom ne ko yaay man te maa def naa ci loolu lay ñuy wax ak cheikh muy benn cheikh ci jamono te sëriñ Touba seexaloon mag ña sëriñ Saliou ñoo seexal benn cheikh def ci moom li ñu naan ak jeex li ñu tuddee ak jeex muy Serigne Béthio di cantaakoor ndax ba mu yeesalee yoon mooy dafa sam samp cantaakoor teg ci moom li mu def digal bi yëpp ñu jébbalu ci moom te di ko tuddee doom digal bi yëpp ñu def ko muy suñu yittee ne it mooy seen moom mooy moom def naa ko muy seen wasila kon Serigne Béthio su demee ba mu soog mu yeesal yoonu jàkk tëralee ko nii mu ko tëralee mu mel da koo def ay pàcc te loolu lépp lu jubloo organisation la méthode la plan la mu defee ko lii mu ko defee may wax saa su nekk man duma ci taay yi duma ci sonn ma bëgg rek ñu xam ne ñun lenn képp la kenn képp lañ ay taalibe sëriñ Béthio lañ ñun ñëpp moom la ñu bokk gëm ci moom lañ jébbalu adduna ak alaaxira ñetti njébbal amul sëriñ Touba kenn la te mooy na mu njébbal te sëriñ Saliou mooy dëgg dëgg sëriñ Touba te nee sëriñ Béthio yaay man ko may yow kon fukki njébbal amul benn njébbal la mooy nangu njébbal te mooy sëriñ Béthio ñun ñi ci def ñëpp ay ndongo la ñu xam ne dañoo liggéey doo dañoo jox mbooloo waaye jox yi ñu càggal jàpp ne moom moom mbooloo moom moom moom mbooloo waaye daf ñoo jiitaloo ci kanamu mbooloo bi ngir ñëpp mënta ñàkk bëgg ñu rëgët mbooloo ñu am ndox ñoom ci pas-pas ci liggéey moo tax nañu xam ne ñun ñëpp lenn leen ñoom ñi day ñoom day ñoom na yi xam nañ ne ñun day dana jàpp la ay taalibe lañu te ni ñu mel xam nañ ne sëriñ Bethio ñu ko kenn ku ci ne ci la bàyyi woon fa ne kon tey jii doo teg ci dara man sama bopp laa koy tàmbalee man nit man la concerné sama bopp laay waxal yoon yi ñu toog maa ngi koy wax ci biir oto bi te naa koo xam na ay ragal yoon wi ñu fii ñoom ñu fi dëkk xam nañ li may wax fii boobu dañu daan defar ay briques di ko jaay di fi defar ay polistrat di fi sotti fer ak ciment ak xeer di ko jaay fii looloo fi am kon xam nga ne xam naa fii man ay ragal ma woon. fekkee laa doon doxee di ñëw ba fii di jaay bañ a ak bisaab man ca Takkour laa de. damay fàttaliku sama déw damaa bëgg sax damaa bëgg war. maa doon doxee Fass bâtiment di topp garage yi ak place liggéeyukaay yi di si ba fii ak tànk man ay rajo moom ñu xamoon di ñëw fii di ko fi jaay. sama déet man xam naa fa ma jógee. ci xam naa fa ma sëriñ bay jógee xam naa fi mu ma jógee xam naa fa ma yóbbu xaw ma ko sax waaye am na lu ma kon loolu li tey bu ñu demee ba 2011 yàggul dara seen cant gi ngeen fi woote woon sëñ Bello teew fii ci lañ jógee tali ci ci la soppeeku ci la mel nii kon bu ñu demee ba ay la jàll moomee dellu si waat toog ci soxna Aida toog mbooloo bi toog nii seen jëf ju rafet jii waaw mbir nii ànd gu rafet jii maa sant sëriñ bi maa ko sant sant boo xamante ni séeréer moom pour jëm aka mu maa yërëm aka mu maa suturaal aka mu maa dimbali barke sëriñ Tuubaa ak mu maa teral ak mu maa sagal ci jamono teg fu dara newul fu kenn foogewul woon dara nga def fa ba ñëpp naan tëj tëj tëj yoo mën a defar aka mën a sagal waaye aka maa sagu moo ma sagal waaye gars yi li may wax xanaa tëj seen bopp fii fii maa ko xam na maa dal te yow moom a teg loolu muccul ma bu demee woon leneen waaye fii naa fi sa toog waaye waaye mu sàmm ma muccal ma mu suturaal ma mu yiir ma mu aar ma mu def lii mu def tey na lii mu tey na dafa ko sant te bu ma toogee fii bu ma toogee fii gaañ lii na baax dañ koy togg di taal lii xeetu taalibe man maa ko gisul fenn amul waaye sëriñ Saliou daa mës a feeñ gisul xew li mu feeñal li sëriñ Bay ba mës a feeñ jamono ji ji taalibe ji ji ji ji doxu bu rafet parce que sëriñ Bay ji set ji sell ji yiw ji ji jikko yu rafet ji taali bi taali bi day lépp sama ay dala sama ay dala wax dëgg la tubaab dafa ne waaye déglu leen ko moom mi daf maa yar dama wax léegi si ma noppil li ngay wax sama yaram dafay daw personnalité bu mu sa nekk ci yow beñee boobu nga doon jaay di ko jaay sa bàjjen personnel dëgg ci Moussa Wane dana ko chef bi ñëwee Fass dafa ne yéen waa Fass ñëw leen Touba am naa seen añ am seen reer ci utul julit sax ñu ñëwee Touba kàll ah xam nañ allah ku dara ku suurul tey dootoo suur ba abadan yow personnel bi mu ta ne ci yow man su may wax kenn du ma dégg dama waa jee ma yëngal waaye yal na yàlla guddal sa fan te bu ma rek di wax li mu wax yal na yàlla guddal sa fan yooyu Seydina Mohamed kon nag Seydina soxna si jawriñ mi ñoo dëkk Padoa ñu soxna euh, jawriñ universel Padoa ga mu nekk macha allah ma ngay def ak seen yi lépp ngeen Cheikh Béthio yal na yàlla guddal sa fan bàyyi la ak mbooloo mi waaw moom mooy juróom bu jigéen nga du fi daa dafa dafa doon sama xarit dañoo demoon ba dañoo dañoo dañoo mel ni bokk ndey ak bàyyi janoo ay kër ku xam neexu seen xam soo la bu sa fekk ñoom ñoo bokk ndey moom mii daf maa yar suñu kër yi janoo dañ maa yar ñoom dañ maa yar boobu ñetti at aw ma ko ñoom ñoo ma yar noonu la demee wax na dëgg lu amul seere neexul. jërëjëf waaw lu amul seere neexul. maa ngi ji laa yoroo ji laay wax na dëgg. su ma faa wane ak ñàkk fayda loolu la su man sëriñ de. waaw loolu moo ma diggante Fass yi ak Medina ak Gueule Tapée rek yooyu loolu bu fa yaroo ba nga xam ne ba nga fay dugg amoo ñaaraat nga dem ba ba nga fay génn sëy moo la fa génn. nga càpp waaye loolu sëriñ bi la waay. barke sëriñ bi la waay. moom la demee moom ñu ma yar moo ma yar moo yar mami Ndiaye moom lii moo ñu yar. waaw góor nga dëgg de waaw waaw loo muy seere neexul nga dëgg ba may jaayee sama mbay jënd dañuy baat ci saam ba. waaye rek ma ci dara dama ko doon eh. ah, defal. ak yërmande ndax moom yàlla dafa dogaloon musul am doom moom boo duggee ci kër gi day fees dell ci jigéen te ñëpp moo leen yar te jurul ci kenn te kenn mënu ko woon xam waaye man nag damaa mujjee daanaka dugg ci loxoom ba pare yërëm ko mu jaraloon ma mu defaree beñe wala bisaab wala nugaar mu andi ma dem jaayam la bu dama ko yërëm ndekete yoo moom Serigne Touba ñu kon moo nee la demee moo tax maa ngi santaat Serigne Béthio tey foofee la ma fay taral ma sagal ma te bilaay sama ànd ak moom 2003 ak léegi jiitu ko sax ay ci li ñu mën a wax dama ciy rëccu dara ci tuuma ci dara ma koy sant bu di ko seeree mbooloo di bëgg ci teewaay bii bokku taalibe yi léegi kat universel boobu daa ñëw ànd ak universel san sek ak mbokku taalibe yi waa xel ko universel soxna jaar mu ñëw ne ma kat universel soxna jaar moo ma ne mbooloo ne na am na ndox mbooloo ni bu ñu ñëwee nañu wax ni kat ñoo ngi siyaar ñoo ngi bég waaye ñoo lay wax ni kat dañoo ñëw ngir kat nee nañu jàng si man ko dafa baax rek waaw dafa baax rek di wax bàcc sëriñ bi baax waaye ku sëriñ béy ko yoon def yow ñu def yow waaye kooku dafa rafetal rek di waaw di wax mu rafet daa baax rek waaw bàcc sëriñ bi baax ñu lay sant Moustapha Jamil ñëw ànd ak Touba kër Sëriñ Touba ñu jël ñu lay sant jur ànd ak ñu lay sant jëwri ñi ñoom it ak mbooloo bi ñoom it ñëw wax kàddu yu rafet ñu lay sant soxna Batoor moo leen yabal dañoo amoon sax daje waaye dana leen bàyyi foofu lépp te ñëw ci yëf cat te boobaa léegi ñoo ko àndee mooy bëgg lool di wax ne sëñ Batoor yi rek la bëgg ñun toujours que bu ñu xamee li li noppal Serigne Baye mooy lii li fi ne mooy Serigne Baye tracé ngir organiser mbooloo waaye loolu bu ñu yóbbu ci ñuy defar yi séparation dafa am wala kër kër kër benn kër rek la mooy seen kër benn borom kër la mooy seen kër moo tax gaañ ndax dama koy wax jamono yëpp. boole kii fii boole kii fii rek nga nekk ak nit ci kuréel bi plus de dix ans plus de vingt doon ay waay xëy benn suba rek yëf yi am rek ku ne téye sa bopp dafa ni waaw loolu gaa ngi ko def mukk doonul lu gënal sëriñ bi nga ko mm. ñëw dañu ànd dundee bu ci nekk fa nga fa nga ñi ñoom ñu miin sama jotaay yëpp xam nañ li sëñ Béthio bëgg rek sëñ Béthio du ma def nii mu ma def jiital ci kanamu mbooloo dogal lii mu dogal ma am sama lu toll nii ñàkk xam wala mbaadoo la day jël sama kaat wala sama jaasi dagg du ma ko def maa lank te kenn jarul ko def mukk waaw barki sëriñ Béthio kon nang leen ci soññaat di leen wax ne ñoo bokk boroom ñoo bokk boroom ñu rafetal ba mu rafet ñu ànd ñu liggéeyal sëñ bi ay taalibe la ay taalibe la koy jëriñ mooy li neex sëriñ hmm. te li neex sëriñ li neex sëriñ rek moo ñu ànd doon benn say hmm. waaw dëppale xol boole fonkonte bëggante wóolante kon noonu la ñu fi def maa ngi bëgg nag lool. ndax lii daa neex lool. waaw barki Serigne Touba. su ñu démb la jëriñ sëñ Xaadim seen ñëw ànd ak mbooloo mi. dama kat universel soxna Adja rajo ba mu doon def ci parcelle dem nañ fa. xam ne loolu rafet. waaw te kat dëkk yi fu mu dem gaa ngi dem keneen fu mu dem gaa ngi dañuy dem waaye bu ngeen demee dafa rafet ngeen dem ba ca ñoom.